mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi am mbégte di ànd ak yéen ci seen émission découverte nuyu na leen di leen ziar baax a baax di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla suñu borom mu may ñu fekk ay at yu bëree bëri seen émission tey ñëw fii nga xam ne moom mooy Touba Xayra ñu ngi am gan goo xam ne nii di kenn ci ñun di sunu sëriñ lañ koy mën a wax di sunu xarit di sunu wëllëre yàgg ànd ak moom ci liggéey yu bëri rawatina ci liggéeyu Cheikhul Khadim bi soxna maam Issa Mbacké moom sëñ Modou Faty xari borom ahlu kafe jiite fédération bi soxna si tey seen émission sa site bi nga xam ne moom mooy 28 pro am mbégte ñëw seet si la di la nuyu di la di la dalal di la bàyyi nga nuyoo ak askan wi ñuy seetaan. aouzu ah, billah mina sheytaan rajim bismillah rahmaan rahim bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu di santaat Serigne Touba Mbacke mi mooy suñu yaakaar yi tey ak ëllëg bu baax sunu njëbal ci Cheikh Massamba mi sunu buntu ci Serigne Touba di leen nuyu nuyu jullit ak moroom jullitam ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu tey ñu ngi génn ci li nga xam ne moom mooy tabaski bi waaye lu ko jiitu am na ay xew-xew yu bari yoo xam ne jaar na fi mën nañ koo tàmbalee ci li nga xam ne moom moo jëm. ci koor gi ñu daan fa am jotaay fële ca kër Serigne Touba ga xaadim muy ci ndog yi mu indi jamono joo xam ne ni maanaam jamonoy mbas mi lañ ko mën a wax beneen liggéey feeñ ci mu soppi liggéey ba nu daan amal foofu noonu ca kër bi ndax mën nga noo dellusiwaatal ci liggéey boobule. waaw jërëjëf Sidi ñu ngi am mbégte bu baax wax dëgg yàlla ak nemmeeku gi ak laaj bi ngeen may laaj muy laaj boo ama am solo nga xam ñun kenn ku nekk xame woon nañ ñu ci kër sëñ Touba ga bi nga xam moo jàkkaarloog jumaa ji ñu fay def ay ndogu ren nag yàlla dogal indi mbas mi ci àdduna bi am na ko fi yàlla jële mu doon lu ñu manqué lool nag loo xam ni wéetaloon nañu lool waaye nag suñu borom daal di soppi jamonoom ñu di ko defee fii ci kër gi pacte yi nga xam ne moom la waa kër docteur joxe woon kilifa yi diine yu aada joxe ko ñu di ko doxalee noonu rek comme daayira fédération bi dafa yaatu ay cent 150 daayira ba ay cent 180 daayira ñu ni léegi daayira bu ci nekk ànd ak juróomi nit ñu ñëw togg ñu toggee ba pare jël oto yi oto bu ne ñu teg ci juróomi nit ñu ànd dem séddale ji ko balaa 6 heures jot ñu wàññi ko kenn ku nekk ñu fekk la ñi nga xam ne yelloo nañ ko ñu fekk leen fañ nekk kenn ku ci nekk la nga ci war a am nga am ko ca ñu teg ko ci anam yi nga xam moom lañ ñu ko digale jox leen ko daal di wàññeeku waat dellusiwaat ci kër gi noonu lañ ko doxale len mu doon nag loo xam ne lu metti lool la ndax xamewuñ ni woon loolu ñun murid li ñu xamee mooy ñëpp dajaloo waaw àndandoo di xewlandoo di jëlandoo di tegandoo waaye nag lañ koo teg lépp nag ci sàtt ndigal yi nga xam moom lañ joxe ngir moytu mbas mi nga xam ne moom la suñu borom indi ci réew ci maanaam liggéey boobu euh, xam nga am na ñu bëri ñoo xam ne ni daawuñu ko gis waaye bu ñu ko gisee mu ñëw fekk si leen ci ay moments yu jafe. est-ce que yéen ñi nga xam ne yéen a demoon leen ko jébbal am nga benn yëg-yëg boo xam ne gis nga ko ci par rapport ak ñi nga xam ne daan ñëw mën naa ne jàpp ne ñoo xam ne dañ daan ñëw di ko wuti wute na ak ñi nga xam dañuy toog rek ci bërëb mu fekk leen fa euh, noo ko doon ko mën a comparer noonu. waaw am nañ ci ak yëg tamit. te am na lu baree bare loo xam ni jàngate nañ ko ci ndax ñun dañoo yaakaar ni sax bu ñu dematee ba koor gi ñëwate dañ koy defal ay équipe yoo xam ne ñii dañuy féete ci kër Sëñ Tuubaa ga ñi ci des di wëraat sañcaan ak daara yeeg ndax yàlla soxla nañ ko lool lool lool dafa dem ba mu doon loo xam ne dafa dem ba bañ demee ba ci dafa doon loo xam mënul woon a ñàkk waaw lu mënul woon a ñàkk la ndax ñañ ko doon jox am nañ ci mbégte moo xam ne soxla nañ ko soxla goo xam ne loolu doonatul loo xam ne ñun suñu xol dina nu mënatee may ñuy bàyyi loola te saa buñ ci eggatee dañoo ñaan sëñ Tuubaa mu dolli ñoo kattanal dolli ñoo xéewalal ba nañ leen ko daan yete kenn ku ne ñu fekk la fa ne jox la ko noonu lañ leen ko yete ña mën a ñëw it di ñu fekk fan daan nekk ñu di leen defal nañ leen daan defal. Mhm. ñan ñoo ko daan jot. Hmm? yan genre nit ko daan jot. waaw am na ci taalibe yi service yi la wala ci autorité yi. waaw service yi. waaw am na ci ay ay ay taalibe yoo xam ci seen daara yi nekk lañ leen fekk ay sëriñ daara yu sori yi nga xam dañoo nekk ci sancaan yi am na ci tamit ay néew ji doole yoo xam ne seeni kër lañ leen fekk suñ demee gaara ji seen bunt kër ñu génn ñëw jël liñ soxla ñu jox leen ko am na ci tamit tamit autorité yoo xam dañ doon liggéey nekk ci tali bi di monter liggéey ci wàllu mbas mi ñooñu tamit daan nañ leen fekk fa ne di leen jox ñu ci mel ne waa Croix Rouge tamit buñ nekkee fii ci préfecture yi daan nañ fa fekk di leen jox waaw loolu tamit muy liggéey bu ama am solo xam ne ñooñu tamit ña nga ci seen liggéey boo xam mënatuñ ko faa bàyyi dem di wuti leen kon suñ demee fekk leen fa jox leen fa ay xéewal dañu mën a continuer seen liggéey ko ci anam ko bëggee euh, wax nga ko sànq muy kon xalaat boo xam ne ni jàpp ngeen ne su war ngeen ko mën a séddale ci pàcc yooyu waaw ko defee tamit euh, donte ne waa kër sëñ Touba ñi nekk ci kër sëñ ñoo ciy xéewlu waaye ñeneen ñi nga xam ne maanaam ñi ngi ci ab liggéey boo xam ne dafa méngóog jamono jooju mm-hmm. wala ak fu muy tombeel kon ñooñu dinañ gis seen bopp tamit. waaw gis nañ ci seen bopp tamit sant nañ ñu ci bu baax tamit mhm. ñaanal nañu ci ñaan koo xam ne dara mënu koo fay kon danoo ñaan yàlla rek yàlla dal li ñuy xéewal taw feexal ñu bis bi ñëwatee lañ daan def ñu dubalte ko minti multiplier ko daal lañ ñaan yàlla mhm. waaw waaye ñaanatuñ ko yàlla bàyyi moom wax dëgg yàlla waaw euh, mën nañoo xam xayma ci li nga xam ne moo fa daan euh, moo boo ko doon budgétiser euh, lu tolloog weer la mbaa sax lu ko ëpp ndax lu jiitu loole ci koor gi la dugg waaye lu jiit loola am na tamit ay xéwal yoo xam ne dégg ngeen ko indi muy sous forme de reer euh, boo ko doon xayma ci budget ñaata la war a toll. waaw ñaari weer la ndax def nañ ko weer avant koor gi ak biir koor gi mhm. loolu nag ñun mënuñu koo xam ndax bari na bari koo xam ne mënuñoo xam ñaata la wax dëgg yàlla bari na moom ay millions la mhm. ndax biñ xoolee liñ jox ci ay daara rek jox nañ trois 300 nangam daara yoo xam fekk nañ leen fay nekk jox leen ci bañu wóorewut ak ci bi ñu wooree ak ñeneen néew ji doole leeg sañcaan loola liñ daan xëy def par bis bari na lool xam daan nag secrétaire général bi bu ko ko jotoon xam ba mu xool liñ ma woon ba xam nu mu toll dina ko xam waaye nag bari na moom moom wax dëgg yàlla bari na lool waaye nag ñu ngi koy sant sëñ Tuubaa rek ndax moom da ngay tàmbali rek mu eggalal la ah, waaw ci fédération bi rek la jóge wala ci ndimbalu yeneen bi nag wax dëgg yàlla ñoom ñëpp def nañ ci seen loxo waaw am na ci ñeneen ñoo xam dañuy def ngir yàlla te bëgguñu ku ko wax te buñ gisee bunt boo xam bunt bu ñuy liggéeyal yàlla ñoom dañ cay def rek te ngir yàlla tax ñooñu tamit yi nga xam bëgguñu seen tur ñu leen sant bu baax xam nañ xam naa leen ngi leen sant bu baax di leen ñaanal lépp luñ Sëñ Tuubaa may rek yàlla ko bokk ak ñoom ak suñu alali bopp it ñun ñun suñu lépp alali Sëñ ñu am def nañ ko ci waaw dafa daan ànd ak benn message sensibilisation ci feebar bi hmm. euh, la da ngeen di joxe ñam rek comme ni ngeen ko waxee euh, mooy da ngeen di topp tamit ko docteur ngeen joxe ci anam boo xam yéen ñu koy yóbbu du ngeen ci am lenn loo xam ne dana leen ci fekk ci eh, maanaam eh, feebar bi waaye tamit ña ngeen fay fekk tamit ñoom tamit duñ am loo xam ne dana leen fekk si par rapport ak ñu ko boobu ñan ñoo ko amee woon ak lan ngeen daan wax ba ñu dugg seen nopp yi ba ñu xam ne feebar baa ngi waaw loolu tamit ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax dem na ba ci doc médecin 40 médecins yi nga xam moom la président yebaloon fii ak militaire yi ñu ci bari ñu ñëw leen yor di leen toggal diiru boobu ba ci ba léegi fi may wax gi am na ñu fi des. ñiy def test yi ñu ngi fi ba léegi ñoo leen toggal waaye surtout yàlla suturaal nañu ci ba ñoom anam gu sell gi nga xam noonu la ko waa kër docteur digale ci tàmbale ji takk laal alcosel yi raxasoo saabu ba set laal alcosel yi sol ay kaa takk ay masque noonu yàlla dimbali nañu ci ba noonu lañ ko doon liggéey anam gu sell te foo ñu fekk muy ca waañ ba muy ca béréb yi ñuy ambale lekk yi ña nga fa teg eau de javel teg nañ fa alcosel teg fa ay kaa képp ku takkut masque bu ñuy ambale doo fa dugg loolu tamit suñu borom dimbali nañ ci biñ ko waxee nit ñi tam ñëpp dañu ko daal di nangul képp koo xam ne bokk nga ci fédération Ahlou Café ba léegi yow yaa ngi doxal loolu yaa ngi takk masque yi yaa ngi sol say gants booy liggéey yaa ngi laal alcool sel ñu ngi continuer di raxasu ba léegi yàlla nag mi ngi ñu ci suturaal wax dëgg yàlla ndax ndigal yi nga xam moom la kër docteur joxe képp ku ko def ndax eh, loo gisee da ngay sabab képp ku ko defee yàlla mën na la cee dimbali amaguñ ci benn cas docteur yi yàlla suturaal nañ ñu ci ñoom nekk nañ fi ba dem ci jàmm suñu leen jox leen loo xam am na leen luñ ci lu suba guñ xëyee dañu gën a encouragé bañ nañ ko sax dem nañ ba ñoom ñëpp suñu xarit lañ mhm. waaw dem nañ ko ba sax dañoo mujj mel ne ab famille lañ léegi ñun ak ñoom waaw euh, ci biir euh, liggéey boobu léegi gis nañ ci am na boo xam ne euh, feeñ na ci muy ahlu café dafa mel dafa am entreprise dafa mel ne loolu tamit dafa doon defar confectionné ay masques di ko yamul woon ci joxee xéewal rek maanaam li nga xam ne moom la ñuy lekk Euh, loolu noonu tamit xalaat la bu ñëw wala fekk ne entreprise taxawoon waaw xam nga ahlu café moom dañoo jàpp ne ñun café rek la ñuy séddale waaw ahlu entreprise la boo xam ne lépp loo soxla mi ngi ci biir fédération bi tey boo bëggoon kër mën nañ la ko tabaxal ba jox la caabi ci dara du ci génn fédération bi soo bëggee ñawlu mën nañ laa ñawal lépp a ngi ci daal bépp xeetu métier boo xam ne rek doomu aadama dina ko soxlawoo mi ngi ci biir entreprise bi waaw am nañ tamit ay ay ay yoo xam ne ay bureaucrate ay enseignants ay enseignantes ay boroomi xam-xam ñoom tamit ñu ngi ci biir liggéey bi kenn ku nekk am nga loo xam ne yaa ngi koy chiffre pour lu man a suqali kii bi entreprise bi jëmale ko kanam te entreprise bi yàlla suñu borom dimbali nañu ñun dem nañ ba mu nekk ONC léegi fan yii rek lañ ñu valideel ONC bi xam naa balaa yàgg dinañ cor récépissé bi kon mu nekk entreprise boo xam ne bu dëgër la te ñëpp nag ñu leen yar daanaka ñu ci bare ba ñuy xale lañ nekkoon si ñun jàng nañ fi ba am seen diplôme ba dem université bay def ay formation lépp ci biir daayira bi lañ juddoo nekk nañ fi ba jàng métier bu mokkal ko tailleur yi tamit ñu ci bari ñoo leen yar formé bu mën a moo tax gis nga bi bi kii commencé waa université ku ci mel ni professeur Cheikh Ibrahima Niang moom moo ñëw wax dëgg yàlla ñëw jàpp ci bu baax ñu defar ay masques yu bari mu séddale ko waa Touba joxe ko rek te ngir yàlla tax moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaw te am na leneen loo xam mi ngi koy waajala tamit yàlla na ko yàlla mottali waaw loolu lépp mi ngi ci biir entreprise bi entreprise la boo xam ne daal lépp loo xam ne nit soxla ko soxla woon na ko rek boo dikkee dinañ la ko def ci wàllum njaay ba ci céréales locales yi lépp dañ koy defar lépp loo xam ne daal nit dina ko soxla foo fii ci kaw suuf am na ci entreprise Ahlu Café Touba mhm. kon donc euh, mën na jàpp ne Ahlu Café du séddaleelu café rek di ko joxe ci xew yi di ko joxe ci màggal yi waaye dafa doon entreprise boo xam ne nii dafa laal ci secteur bu nekk yooyu nag ay ndaw euh, yore ko yoo xam ne ni comme ni ko soxna si waxee ñu jëm ci ay enseignants enseignantes ay étudiants ak étudiantes ay ñi nga xam ne ci ñoom ñoom ñooy euh, mën naa ne ay ouvrier parce que wax na ci wàllu bâtiment ku soxla ñu tabaxal la ba pare jébbal la say caabi xanaa rek euh, di wax ne ñi ngi seetaan ci seen site 28 pro ne ubbil nañu euh, bunt ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a adhéré wala bokk bëgg liggéey ak entreprise boobu noonu kon entreprise bi entreprise Euhlou Café la tudd wala dafa am beneen tur. Oh, waaw fédération Euhlou Café Touba léegi nag ONG la tudd. ONG Euhlou Café Touba. waaw ONG bi kon léegi ONG la Euhlou Café Touba. waaw eh, yaatu na ci branche yu nekk. Mhm. Euh, soxna si dañu jugee foofu mais at mu jot da nga daan jàkkaarloog sa soorool bi nga xam ne moom euh, moom lañ leen euh, bàyyee woon ci liggéey bi mooy ci yokk soorool yi juróom-ñaareel yi wéetal na la ci weeru koor bi. ndax da nga daan toog rek di jàkkaarloo moom mu am fu la delloo. wallaahi wallaahi na ma lool suñ ca mosaan nekk ndogu ba julli ba ndodd timis ba kaabar day mel na ñoo ngi àjjana dafa ñëw manqué lool ren koor gi dafa metti ci man ndax génn ma saal bi génn ma saal bi ba weeru koor bi suñ masaan di liggéey fee la taxaw ci kaw tiim ñuy séddale bañ pare ba oto yi départ ma doo desewaat mu doon loo xam ne du ma ko fàttee muk mukk lu méttee métti ndax ñun dañoo tàmm nekk ci jumaa ja di dund Sëriñ Tuubaa dund ko wér a wér waaye nag xañ na nii la ko yàlla dogale waaye na teewut mbas mi jàngate nañ ci lu baree baree bare suñ borom xamal nañ ci lu bari loo xam ne mën naa am diiru ñetti weer yi suñ ko toogul woon duñ ko xam kon dañuy sant yàlla bu baax soror bi nag yàlla dimbali nañu ba bañ ko bañ koy fondation ba léegi ñu nag ñoom ko àndoon du ñaanal sëñ Sidi Muxtaar mi ko defoon yàlla yokki leeram te taas ñu ci barkeem ànd ak nit ab liggéey ba mu pare ñu woo la ne liggéey ba sotti ñëw leen setalal ñu fi loolu mbégte la keroog tamit amoon naa mbégte mu bees tàq keroog bi sooral bi noppee ba ba ba kii woo ma ingénieur bi woo ma ni ma nañ ñëw setal ko génne bagage yi dese yi fi nekkoon na yëpp ñu génn ko nit ñi yéeg ci kaw sooral bi raxas ko ba mu set tàmbalee ko ci kaw ba suuf mm-hmm. dindi dese yi fa nekkoon tonni suuf si dindi xeer nettoyé foofu ba mu set muy tolloog lu mat ñetti àjjuma yoo xam def nañ ko mm-hmm. loolu tamit mbégte la moo xam dootuñu ko fàtte ko ndax amaan am na ñoo xam ñu nag ñoom bokkoon liggéey te jóge nañ fi bu yàgg te ñun ñi fi des defalu ñu yàlla lu tax mu bàyyi ñu fi loolu tamit ñu ngi koy sant Sëriñ Tuubaa bu baax liggéey bi egg na waaw wax dëgg ci des nag mooy xanaa uniquité rek waaye lépp pare na moom. ñu ñu ànd bi nag ñoom ñoo dem ba tuddee ko sooral lu ëxlu café ñu ne fa la ñuy defee suñu lépp bu sëñ bi wootee wàcce kaamil fa la ñu koy defee suñuy amee suñuy sarax yi ñuy joxe foofu la ñu koy yóbbu su taqee ñun ñoo koy setal dem nañ ba sax ñoom bu dara xewee bu ñuy kaam kaamee ku sol bulus axlu café boo dikkee doo fa dugg wala dañuy génn ne la bàyyi leen kii ci ñun la bokk loolu tamit ndimbal la ndax yombut ndax lu toll ni jumaay Tuubaa ñu jox la fa li koy maaye mooy liggéeyal sëñ Tuubaa rek te dëkkal waaw te dëkkal loolu de te sunu jàmbaar na xañ na ndimbal lu ñu sëñ Tuubaa dimbalee la waaye du sunu jàmbaar mm. ñu ñëw ci liggéey bi nga xam ne tamit doon nañ ko topp ci biir bi bu daan euh, teru waaye tamit doon yaa ngi doon séddale ndogu di ko jox fi euh, néew gi doole yi waaye di waajal Sarsara ren fi mu dugg sa xel mi tamit demoon na ci màggal googu li nga xam ne ni bokk nga ci ñi ngay ñi koy piloté fii ci Sénégal. waaw loolu tamit mu doon moom lu ma manqué lool lu metti lool. ndax dem naa sax bay tëdd di gént Sarsara boole kook nit ñi di ma woo xam nga nit ñi tàmm nañ ko. Mhm. ndax Sarsara dafa doon béréb boo xam heure boo fa demee rek da fa yëg yàlla di fa yëg yonent di fa yëg nit ñi bëgguñu lu du Serigne Touba moo tax nit ñi tàmm nañ ko tàmm koo xam ne. wax dëgg yàlla da ñàkk dem gi ñu fa ñàkk dem moom manqué na leen torop te am na lu mu def ci ñoom tamit ba ci man mii sax damaa mujj dem am na bis yoo xam sax toog naa fi samay ronkoñ tuur ndax ñàkk gi ñàkk dem Sarsara ndax dañ ko taam ndax dañ fa yàgg dem te bañ fa saa buñ fa demee foo xam ni sëñ Tuubaa nee na képp ku ma fekk tàggoo nga ak bàkkaru àdduna ak bu àllaaxira nga xam ne at mu na yow nga teg fa sab tànk loolu dafa dal xel lool ba at ma fa dem sa war ngaa am waaye nag ñu sant ko yàlla bu baax ndax lii xamuñu tax suñu borom def ko ah ñu fas yéene waajal déwén nag ba waaye nit ñi tamit manqué na leen fu ne nit woo na ma fa lu nekk nit wax na ma ko ni ma ndax danañ tam waaye comme tëj nañ frontière yëpp kenn mënut a dem nañu ñaan yàlla mbas mi jeex ak jàmm xam naa day gën a neex rek ndax comme sëñ Massamba lañ ko tudde woon ren ñu waajaloon ko ba mu njëkk demuñu dañuy yokk waajtaay bi rawatina nag yéen waa presse bi ñu ngi leen di gën a woo ngeen gën dajaloo groupe bi ñu defoon ñu gën a seet nan la ñuy def ba def karawaan bu dëgër a dëgër boo xam ne dinañ mën a waajal Sarsara bu baax a baax waajal boo xam ne dina wuuteeg nañ ko daan waajale ndax ren kat sar saara yëpp yëpp a daan neex waaye ren jii nag kenn ku nekk sa bunt suñu Masamba mi ñu yaakaar suñu yaakaar tey ëllëg moom lañ ko tuddee mbokk yi ñuy seetaan yéen ñuy topp ci 28 pro dañuy ànd ak yéen am benn extrait bu ñu seetaan boo xam ne nii suñu mbokk naar yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Mauritanie rawatina ci Matam Mulaana ak li ko wër bër bërëb boobu nga xam ne moom mooy Sarsara demoon nañ ca jumaa ji nga xam ne moom lañ fay tabax di ñaan ci suñu borom waaye ñaan ko ci barkeb Cheikhul Khadim se ngir mbas mi jóge fi ñu ànd yéen seetaan élément bu ànd ak suñu mbokk taalibe fa nekk اللهم عاف بلادنا من هذا الوباء اللهم عاف بلادنا وعاف منه بلاد أهل طوبى وسائر بلاد المسلمين وأهل السنغال وكذلك إخواننا وأحبائنا وأصدقائنا من سائر المسلمين إنك مجيب الدعوات اللهم أجب دعوتنا اللهم أجب دعوتنا اللهم ارحم ضراعتنا اللهم ارحم ذلنا اللهم ارحم فقرنا اللهم يسر علينا حياتنا ويسر علينا مماتنا ويسر علينا برزخنا ويسر علينا حسرنا اللهم اقض سائر حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم اقض حوائجنا وحوائجنا اللهم اقض حوائج من اوصانا ومن احبنا ومن عاهدنا ومن أحسن إلينا ومن له صلة منا اللهم جاز عنا أحسن المسلمين أحسن جزاء اللهم جاز عنا المحسن أحسن جزاء اللهم جاز عنا المسلمين أحسن جزاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم إنك قلت وقولك عقد وليسك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا السهم ومنك القصد اللهم لا ترد على خائبي اللهم لا ترد على خائبي يا من متى يقول لأمري كن يكن عجل قضاء حاجتي من أهلكم يا من متى يقول امري كن bu ñu jógee foofu noonu soxna si gis nga image yooyu noonu euh, mën na ne am na tamit loo xam ne def na ko sa digganteeg naar yi ñoom tamit ñàkkul ne am na ñu la doon woo ngir di fàttaliku li ni si loolu de mu gisee mën naa la bis ba sama ronkoñ dal sama dënn. loolu la bis boobu ca la bokk ndax naar yi seen jëm bopp mën nañ mën naa ne ki ñu ko njëkk a envoyé man ca bokk ndax naar yooyu yëpp dama leen a xam ñu xam ma fii sama kër gi dañ fi ñëw bu maa ko jotee ñëpp dañ fi ñëw defal ma kendal mu doon loo xam ne nag lu rëyale ndax comme ñoom ñoo mën a kenn la Serigne Touba noonu ba xam ne Sarsara lépp lu fa waaye ñaan mu am ñoo fa dem di ñaane noonu kon loolu war naa am lu baree bare luñ ci jàngante dem na ba sama téléphone dafa téléphone dafa mujj fees teel ndax ku ko gis rek envoyé ma ko ku ko gis rek envoyé ma ko mu doon loo xam ne tamit mbégte la ci ñun mbégte la ci ñun sëñ même sëñ Muntaxa sax ba mu ko gisee dafa bég ba nga gis moo xam ne donte daan nañ ko gis tamit mosuñu koo gis xanaa di sant yàlla bu baax rek te xam ne naar ñoom ñoo xam sëñ Tuubaa ñoo xam sëñ Tuubaa mooy kan ndax gis nga as misra li muy wax at mu jot nee na moom guddi ajuma bu jot day ñëw day jóge maata mu daana sa sarsaara fekk fu sëriñ Tuubaa ñaan ko ay soxlaam dellu te moom du murit waa kër ba ay ñas la waaye ñoom xam nañ sëñ Tuubaa mooy kan rawatina na waa bënn daymaan ya fa ne nga xam naar yooyu ñu wane woon ñu ci bari ay sëti waa bënn daymaan lañ kon luñ def lu sant yàlla bu baax rek xam ne seen sarsaar moom mbir nga fa suñ tubaab moom demul fenn waaw jaara delluwaat euh, santaat yàlla dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu jërëjëf sëñ Touba. Euh, ñu ànd nag ak soxna maam Issa nga xam ne moo ñu dalal fii tey ci Sarsara. xëccoo bi dafay mel ne dafa bëgg am lu ko fay indi te Sarsara buñ ko waxee bokk na ci moom mii nga xam ne dem na fa ci jamono yu gën a métti yu tey jii nii. mën naa cee fàttaliku mooy bi ma doon wax ne am na moment yoo xam ne dem nañ ba sa oto. chauffé ci àll bi ak naaj bu tàng jër tey ñeneen bëgg ñëw bëgg a accaparer yëf yi ñooñu loo leen di wax ak loo leen di loo di digal. ah xanaa rek li ñuy wax rek lu set am banam waaye xam nga suñ bàmba ji moom dafa yaatu waaye nag lu métti mett buñ fàtte ne naar bee fi indi xorom si waaw buñ ko fàttewul rek mu baax ndax Sarsara nee naa ne dina dem ba mel ni màkk mel fu nekk kenn rek mënu koo seere. fu nekk ay délégation jóge fi ci àdduna bi te loolu mi ngi commencé am gis nga Màkka ñaata délégation ñoo fay dem loolu dana mën am kenn rek mënu koo seer waaye nag du teye ñoo xam ne Sarsara ka fa njëkk a yóbbu délégation man mii la waaw man nag siisuma ci kenn boddiwuma kenn waaye nag mbir moo gis dafa am njiit ka war a jiitu na na jiitu ka war a topp topp ci ndax euh, Serigne Touba bi muy sos yoonam wi ah, laata muy tudd yoonu murid yoonu toppante la ko tudde woon comme ñun dañoo am kilifa gu ñu fekk muy Serigne Sidi ñu dem jiite ko topp ci ginnaawam képp ku war a ñëw dangaa war a topp ci suñu ginnaaw ñu àndandoo di jëlandoo di tegandoo waaye bu ñu fi bëggee indi ay tendance ak ay yeneen yoo xam ne bokk ci tamit day xaw a doy waar loolu nag ñun rafetlu wuñ ko dara ndax ñu ñoo bokk lépp ñoo ñun ñëpp ñoo bokk doon si taalibe Serigne Touba kon war nañoo mën a àndandoo di jëlandoo di tegandoo waaye nit nga yóbbu ko ci biir ba pare mu xëy xëy fedd ko jaar fee boole ko di la ci tegal ay kàddu yu doy waar loolu dafa neexut nag ci xol waaye nag ñun ñoo sant sëñ Tuubaa sa mbokk sa taalibe yi nga xam ne tamit ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Mauritanie doon séntu tamit sa ñëw foofu noonu ànd ak sa délégation sori te metti lool yoon wi dox diggante Nouakchott di capitale Mauritanie ak Sarsara doon lu tar lool ci taalibe yi demoon ci ziaru ren jii. bu ñu xalaatee ni sëriñ bi bi muy ñëw Sarsara dafa dox ak tànkam si kon ñun lii ñu jonkonteel ba yëg si fii dañ ci sant yàlla bu metti na sore na waaye lépp yi dañ koy sant Touba rek. yoon wi moom kéemaane na moom wax dëgg yàlla moom. na gis nga ni ñu mel nii moom. waaw metti na moom wax dëgg yàlla moom. ziaru Sarsara ren jii. ba ca Paris la France ñu di ko fa amal. dem naa màggali Paris. màggalu Sarsara am fa ñeenti fan ñëwaat fii ci nu waag suut màggal màggalu Sarsara loolu lépp ci ak yokkute la tubaab yaa ngay màggal màggalu Sarsara ab diir a ngi nii ba ñu na sëree taxawal ab jàkka fii ci Sarsara liggéey bi ñii di taalibe yi jot ci def ay jéego fondation bi lañ toll weer wu ñu toogati wala ñaari weer yu ñu toogati nañ fi yow maanaam seet la nga xam ne moom lañ ci war a moom lañ ci dajale ñu def ko ci ab barabu jullikaay di li ñu njëkk a taxawal ci gox bii di Sarsara di gox bu kenn dëkkiwul lan moo waral lu ni mel tontub Sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Mouhamadul Moustada mi fi teewal xalif général kulu murid fii ci Mauritanie. julli moo tax ñu dugg euh, tabax julli juróom. julli juróom nag fu ay nit dëkkut yaakaar naa ne dana xaw a yéeme lool ci xalaat. wante ñu xam rek ne ginnaaw barab la boo xam ne bi fi sëñ mag bi jógee léegi kenn nekku fi moo taxoon ñu doon sàkku li ñu fiy njëkk tabax. doon néegu yàlla. barab yu fasanti ko ci sar saara ñii di taalibe yi ziar ko mbégte di lu fës loolu ci seen xar kanam. barab ñu nekkoon ci suba. moo nekkoon kër sëriñ bi. fi jàkka ji nekk mooy barab bi nga xam ne fa la bi daan jullee waxtu yu juróom ñetteelu béréb bi mooy béréb bii nga xam ne fi lañu ñu nekk fii nag fi la gisee woon ak sangam bu tedd ba muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàgg naa koo bëgg waaye tey la ko suñu borom dogal waaye ñu yéemu lool tey xam ne nag suñu Bamba Xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu ko waaye defal rek fayoo ko ndax ñun fii ñu jaarale tañ na nooy ne tey kuñ fi jaarale woon ca ko waaye defal rek fayoo ko macha allah tabaaraka gën di yokk rek ndax bu ñu ñëwee premier mel woon nii noonu la wàcc si ma tamu laana nekk ñaari xayma donc tabaaraka léegi macha allah macha allah macha allah. fii sëñ bu mag bi daje woon ak euh, Cheikh Sidiya Baba foofu ma gën a ci moom daal foofu moom bon fa ñëwee daal moo yëg naa ci sama yaram loo xam ne xam naa ne xel ne fii la daraa fi. bu demee ba am ampleur bi ba am doole bi tey jii mu am ba Sénégal yëg ko grâce à soxna Issa Mbacké. boo waa amee sañ-sañ ak fit di ñëw ba fii di ko magal grâce à soxna Issa Mbacké ci ziara 2015 bii di fukk ak benneel bi yoon ñu di ko amal lim bu takkoo takku ci ay taalibe yi teewee ko bu weesoo ñetti téeméer ak topp yi bokk ci délégation bi bawoo Sénégal lim bu takku ci ay taalibe yu nekk fii ci Mauritanie ràññeeku ca lool ni ñu ko baaxoo mbooloo mi teewoon ci ziaru Sarsara bi egg ca Matamulana foofii Haj Misri dalal leen fa ginnaaw ziar bi ñu amal ci àllub sarsaara bi délégation bi bawoo Sénégal seen ziar bi ñu ngi ko jeexalee cérémonie officielle bi ñu amal ci teewaayu ki fi teewal ambassadeuru Sénégal. waaw xanaa wéet lool rek ñu wéet lool daal mu doon lu metti lool loo xam ne lii sunu atum ren mi kenn du ko fàtte ndax ñoom tamit taalibe yi nga xam ñoo nekk waa Sot rawatina waa daayira Ahlu Kafe ba ñu fa sant wala xadd karam ñoom benn événement rek la ñu am mu événement sarsaara boobu ñu di ko waata waajal atum lëmm. buñ nee amut xam nga dina leen manqué am na tamit lu def ci ñoom waaye ñu bokk muñ rek comme lu metti moom ci doomu aadama lay def nañ bokk muñ rek ñaan fekkee ko ñaan dund ndax dara weesagut buñ ko fekkee jàmm xaj na day gën a neex rek waaw. kii euh, ba tey ci Nouakchott euh, foofu noonu xam naa ne du duñ fa gaaw génn euh, kenn ci taalibe sëñ Massamba yi bésam ba tamit xam naa ne dina ko manqué trop muy sëñ Sabara sax. ndax moom amul lu dul sëñ ma sàmba te bis boobu rek la am gëm sëñ ma sàmba la doon murit saada moom bañ na ko dafa feebar mujjoon na sax di yónnee di def lu ay ñaan nañ ko ñaanal ndax dafa feebar te loolu rek moo ko feebaroon kon ñoo ngi koy ñaanal rek moom it bis bi ñu ak jàmm rek ba mu defaat bisub sëñ ma sàmba boobu te yàlla defal ko ci la kawe njortam te ñëpp ñaanal ko yàlla oyofal yaram bi dara feebaru ko nag loolu rek moo ko feebar ndax da koo manqué loolu daal ndax bañ ko nee rek comme da daan màggal sëñ ma sàmba at mu jot di ko boole ak sarsaara ñu ne ko déwén nag sëñ Masamba lañ ko tudde loolu dafa doonoon ci moom mbégte moo xam ne kenn xamul fu mu ko egg buñ demee ba ne amut xam nga da koy manqué am na ci déception trop waaye nee naa ko nga muñ rek ñu ñaan ñun ko rek te xam ne day gën a neex rek waaye dootu naqaret kon daal déwén incha allah moo nar a dàq incha allah euh, mbokk yi ñu daal di ñëw ci sa diggante ak ki fi nekk tey Serigne Touba Serigne Mountakha seen diggante yéen ñaar yàgg na laataa muy doon Serigne Touba euh, relation boobu noonu fu mu soosoo ak tamit yan liggéey nga liggéey ci kanamam ba tey jii nii ngeen ànd di liggéey rawatina lu bëri mu confier la ko. waaw xam nga sëñ Mountakha moom mooy mooy jëwri ne maam Diarra waaw ndax sëñ Moustapha Bassirou yal na yàlla yokki leeram taas suñu ci barkeem daan ko wax naan man maay seen góor mbootaay sëñ Mountakha tamit ñëw taxawee foofa ñëw ànd ci liggéey bu maam Diarra bi mu doon suñu rek mu lu yàgg lool ñu ànd ci liggéey bu maam Diarra bi waaw ñu di ko jëbal daayira ba muy benn daayira ba mu dem ba mu ay téeméeri téeméeri daayira ah mu taxaw nag wax ci man wax ji doy waar joo xam ne yéeme na adduna bépp dégg nañ ko xasanteeg man kóllëre wax dëgg yàlla mu xam ne man ab taalibu sëñ Tuubaa rek laa mu jox ma wàllu googu ba mu mat sëkk a ah, moo tax bi mu toogee xalifa bi sëñ Tuubaa ba mu demee dane ma yàgg nañu ànd tey avant lii am waaye dama ko fas yéene ànd ak ba mu sotti colet mu doon bis boo xam bisu mbégte la boo xam ne mm. duma ko fàtte mukk waaw waaw saa yi ma ko gisee rek mu ma seeral na gërëm nañ la. barki dem bi ñu ànd ak sañ dem di ko waxi waat naan xam naa dinañ leen jox image ba sax di ko waxi waat nag sab saadi fomm nañ ko waaye ñoo ngi yeesalaan digali ba déwén ak jàmm dana ges sañ Sidi ni ko seeral ni soxna maam sant nañ ko. wax na ko ko ñett yoon ni ko moom jàmbaar la trop te sant nañ ko te kàddu googu heure bu ma nuyoo sëñ mu taxaa ni ko mbàkke mu ne mbàkke la may njëkk wax mooy seeral ni sant nañ la kaddu ko nag doon kaddu gu rëy ci man ko xam mooy li ma gën a neex sama àdduna ndax ab murit buy liggéey kat ab sëriñam sant ko rek la bëgg mhm. te saaso soo gisee mën la sant naal la da gën a am mbégte te loolu tamit day yokk ak laxasaay mhm. waaw sant yooyu yëpp nag dama koy def ak laxasaay takkaat ko ci sama ndig ba mu dëgër ka mhm. nga nga baax ko tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy ay maam jaara yin la dénk waaw maam jaara yi tamit ñoo ngi liggéey ci daara yi xam nga ñëwagoo ci daara yi ndax ci jamono yi de ay maam jaara am na ci daara waaw daare yi ñun ñoo ko ubbi ñoo ko ubbi ndax 2005 ba sëñ Muntaxa laajee maam jaare yi ni daayira bu nekk na ma indil maam jaare ñu yóbbu ñoom soxla woon nañ 450 maam jaare ñeenti téeméer ak juróom fukk bañ demee mu mat ñun amoon nañ lim bu toll ci téeméer ñu téye leen fi ba mu am ñetti at te sëñ Moustapha Bassirou wàcc bu leen a ci leen demee ci sëñ Muntaxa wax ko ko ni ko ñun maam jaare yi ñu gën a yokk rek ndax fédération bi dafa yaatu ñi doon laaj ndigal ba xam nan leen leen def mu ne ma am nga ndigal ci ubbil leen ay daara leen ndax li di ay maam jaar lépp xëj ñu poroxaan te poroxaan jàng xam-xam xam seen diine rek lañ leen fay jàngal waaye nag ubbi fu nekk na doon bànqaas ci poroxaan daara ji njëkk ubbi fii ñu bintu Cheikh Ahmad Bamba bi nga xam moo ma yar ci moom laa jële kafe gi keroog sëriñ sëriñ Hakim moo ànd ak sëriñ Abdoul ñoom ñëw ñëw léemu si daara ji keroog yàlla na yàlla yokki leeram Hakim keroog doon ma yow dama lay ñaanal sa daraje bàyyi yow xanaa xamoo sa bàyyi sa bàyyi ni mu baaxee maam jaare yi fi nekk ñëpp dinañ mokk wàcc alxuraan ñooñu sëñ Abdou Karim léemu ñëpp mokkal nañu alxuraan ba ñu ci bari ñoom ñooy jàngalewaat ci biir daara ji dem nañ ba ubbi ci fukki 14 daara fukki daara ak yoo xam ne lu mat 2000 maam jaara ñaari junniy maam jaara ñu ngi leen di jàngal barki démb rek am nañ ci ñeent ñu mokkal doon tari xam gis ngeen image yi yàlla ñu ci nag wax dëgg yàlla di ko sant sëñ Tuubaa bu baax ndax maam jaara nekkoon Poroxaan di jàngale ñoom ñoo ñëw di jàngalewaat fii ñu nit jàngal nañu ay maam jaara ba ñu mokkal ñu ngi jàngalewaat loolu la ndax 2005 ak léegi yàggut Euh, tey nag euh, su fekkante ni dañuy continuer ci liggéey boobu le boobule euh, ci biir Touba nga samp daara wala tamit da nga da nga yaatal ko ci réew mi. waaw daara yaatu na 14 daara région bu nekk am na fa daanaka ndax Touba rek ñeenti daara ñu ngi fi am na fi bu ñu tuddee soxna Aysatu am bu ñu soxna Aminta Bussa waajuru sëñ Abdul am na ci bu tuddee soxna Kunta Mbacke mu sëriñ Fall bu daaru Moussi am na ci tamit bu ñu tuddee soxna Bintu Mbacke mu ma Massamba ak soxna Isa Dieye. soxna Issa Dieng ñu ngi ko ubbi woon kàcc maam Jaara waaye daara jooju dafa tëj dañ ko bëgg a tuxal kon léegi kon xam nga Tuubaa kon juróomi daaraa ngi fi woon am na bu nekk njaareem daara ji gën a mag mi ngi njaareem soxna Faat Jaxate lañ ko tudd waajaru Sëñ Saaliw Mbàkke daara jooju tamit juróom benn téeméeri maam Jaara ñu ngi fay jàng moom ñu fay ñu fay jàngalee ñëpp léegi ca daara ji lañ jànge léegi jëleetuñ fenn jàngalekat wat mu jot koor gi la ñuy def conférence ren tamit looloo tax conférence bi amut ndax tari yi ci koor lañ ko doon def soxna Anta Ndiaye Mbàkke mi ngi Cees ah soxna Moome mi ngi mi ngi côté Xombal dëkk bu ñuy wax Ngomeen soxna may mun foofu la nekk soxna Xadi Jëtu tamit foofu la nekk foofu lu mat ñetti daara nga fa maam Seyna bu Njaay ma nga dànd ah soxna Awa Buso ma nga Keel ci gën wetu fële côté Saalum soxna Awa Buso noonu lañ ko toppee du ko toppee bu mat fukki daara ak ñeent te bàyyeekuñ ndax daara ñun tamit dañoo bëgg mu nekk 28 lañ bëgg mu nekk li mu arafi Touba Euh, macha allah loolu muy liggéey bu am solo euh, ñu ngi koy xaarandi tam mbokk taalibe yëpp ñëw jàpp ci euh, dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne moom moo xew ci jamono ji tabaski bi wala mbas mi indi na lu bëri ci changement ci xew yi xew yi bu njëkk dañ daan gis xam na ne sax daaw ñu la ci gis ci jëm ci ndayale yeeg njëkk yeeg wala magale yeeg yooyu nit ñi est-ce que bokk soxna yi war ñoo jaare foofu noonu bàyyi li ni mel définitivement ngir maanaam dimbali seen bopp dimbali borom kër waaw a ah, ñun de fekkoon nañu bàyyi ko ndax xew moom ak xew moom daanaka lu jëm ci sëñ bi ñun duñ ko woote waaw xam naa ne jamono yi de wax dëgg yàlla waroon nañ cee doxe bàyyi ko ñu bari nag ban nañ ko wax dëgg yàlla gisul dawatina suñ koñ bi ay xew moom ñu ci bari moom ban nañ ko ndax dañoo dem ba mënatuñ koo def suñ borom moo leen ko bàyyiloo ndax xam nga ne jamono mbas mi kenn du woote ngent kenn du woote ceet moo tax bàyyi nañ ko ci nii ba nga koy bàyyi ci nii wala nga bàyyi ko ca nee rek moom wax dëgg yàlla bàyyi nañ ko demee ba sër yi fi am yëpp dañ koy def buñ ne suba la tabaski wala buñ ne suba la màggal buñ paree mu ceex loolu nag yàlla nag sonalul kenn ku sonn yaa sonal sa bopp am na ci affaire puukare yoo xam ne nag moom dafa jar bàyyi ndax soo ko bawut mu bala kon nag nga ba ko wala mu laa ba moo gën mhm. euh, léeg-léeg da maanaam euh, dañuy gis ci jamono jii ñu toll mu mel ne ndigal nit ñi am na ñoo xam ne maanaam fonkatuñ ko wala boog bàyyiwuñ ci xel mën naa jël exemple ci mbas mi ku baax ki sëñ Mountakha day takk mask kaalaw euh, respecté maanaam mesure barrière yi nga xam ne moom la ñu waxee te teewul nit ñi nag ñoom dañuy dem ak seen xelu bopp rek ndax loolu maanaam ndigal la wala boog ban xeetu nit la daal nit kooku le waa jamono ji daal mooy yàqu rek waaye nag ñu daan ndigal ba léegi ñu ngi dekk ndigal ah ñi naa daan nekkoon di xeex diine di xeex lislaam ba lépp seen i sët ñoo fa ne loolu moom allah kulli alin dañ fii ne wax ndigal moom kilifa nit moom day am kilifa ndax lu sëñ Baye Jaxate wax rek am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amut am nga solo ku wéeruwut yomba borom te ku amul kilifa jinne di sa kilifa mm. waaye lii sëñ Muntaxa digal képp ku ko defut it musiba rek nga ciy jële man de loolu man lu ma xam a xam la te am na ci loo xam teg nañ ci suñu bët te dam demee ba ci kanam dinañ xam ñi doon jëfe ndigal ak ñi jëfewul ndigal ñun de parce que fa suñu yéenee jalgati ndigalu sëñ Muntaxa ndax war nañ koo seetaatal war nañoo seetaat suñu bopp bu baax a baax ko ci kër ci biir kër yi rek lépp nag ñàkk yar sax njaboot rek la ndax ñun ñii nga gis ni masque yi nga xam dañ koo bañ a dem ba di ko ñaw ba fi mu nekk dañ koy ñaw garde ko foo ma fekk sama oto bi ay maskaa ngi ci biir biir saal bi ay maskaa ngi foo ma fekk ku fi ñëw sax te takkoo masque dinaa la ko jox ngir diwee ndigal ndax aar sa bopp ñàkk sa bopp ñàkk ñi nga dendal mm-hmm. Mm-hmm. gis nañ sax masque bi nga xam ne moom nga takk. waaye waaye du tey yéenduwuma fi waaye masque yi ma takkoon ba ma dikkee dama ko dañ ñuy ñëw. waaw maag daam may ñoo ànd bu ñuy egsi di ko tekk di teg fële jëlaat yeneen yu bees. Euh, kon donc euh, ci li nga xam ne moom la ñu jëm euh, muy màggal Tuubaa gi ahlu café mi ngi ciy waaj bu baax a baax wala dangeen ngeen déglu rek ban xam ba xam fu ñu jëm. waa ñun dal xamuñu suñu bopp dara ñun dal ay jaam jaamaati sëñ Tuubaa la rek xam nga màggatum pël buñ ne nañ mànga ñu ne eh mu nee toog ñu de ñun daal ndigal rek la ñuy déglu. moom rek ngeen di waaw waaj nañ ba jekk daal. ak lu café daa moom xew-xew sëñ Tuubaa du leen bett. Mm-hmm. nga xam ne ñoom séddale kafe rek ak bale ak raxas buub. Mm-hmm. ak lu ñuy liggéey ñu liggéeyal ndax ñun ñooy jaami daayira yëpp mm-hmm. waaye teewul lépp nag ci kaw ndigal lañ koy teg waaw. Euh, mbokk yi ñu seetaan ñu ngi am mbégte mu nekkoon seen émission découverte euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, ren jile ñu ñëw nag fi nga xam ne Touba Xayra soxna maam Issa Mbacke moom sëñ Modou Faty Xare borom ëllu café moom la ñu daloon xanaa kàddu yi ndénkaan yi rek yan kàddu la. xam naa ne bala maa jox kàddu ndénkaan yow Seydi dinaa la sant yaak bekkaay mi ndax lu yàgg rek dëggal te yéen ñii da yàgg ànd ci Sarsara bu muy metti ba léegi ñu nag yéen a ko ànd maa ngi fàttali keroog ba ngeen yoree seen caméra yi di tawte mu metti loolu muy bis bu guddi goo xam duñ ko fàtte mu ko ci àdduna waaye nag du ngeen rëccuwu leen ko waaw ndax sëñ Tuubaa soo ko defalee loo man mu defal loo mën soo ko defalee loo mën mu defal la comb kon yéen maa ngi gën na a feddali sama kóllëre ak yéen di leen gën a jàpp bu baax ba xam ne leen ci ñun ngeen bokk suñu njaboot ngeen te yéen a ngi ci biir Akhlou Café yéen yéen ay conseil Akhlou spécial te seen image yi moo ko jàllale fu nekk ndax média dafa am solo mhm. fépp fu mu egg ci àdduna muy sar saara ji muy café gi muy nekk yéen seen loxo génn ci kon ñoo ngi leen di ñaanal bu baax rek yàlla may leen gudd fan ak wér ak mujj ko rafet te seen télé yi bokk ci tele yi gën a màgg ci àdduna bi ci barke Sëñ Tuubaa euh, loolu noonu lu ñuy mën a seede la waaye xam naa ne ñun kay dañuy jëfe ndigal rek ndax moom moo njëkk a génn ci taw bi. di ñu wër daa waññeeku <laughs> waaw <laughs> ndax moom moo njëkk a génn ci taw bi di ñu wër ne ñu añu fu fu ngeen nekk ñu ni boobu ñu ngi ci biir oto yi waaye buñ ko séenee rek la bekkaay ne fëccet daw topp ko Pape Seer na ko noone ñu la ci sant bu baax a baax soxna si loolu lépp maanaam dag ñuy wane sax njaboot lanu eh, di la gërëm bu baax a baax ci eh, tamit accueil bi ndax at mu jot dag ñuy bàyyi lépp lu jëm ci communication ba ci sax convoi bi da nga koy bàyyi suñu loxo ñu ci ànd ak euh, sëñ Abdoulaye Dieye ñu koy nuyu de passage moom tamit di kenn koo xam ne nii ku ñu war gërëm la. di ko sant bu baax a baax waaw liggéey Euhlou Café loxoom jugu ci te it lépp moom la ak ñoom daam mi nga xam ne moom moo yore kafe gi euh, daam Diop tamit chauffeur. ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax soxna yi tamit yi ànd ci fédération ñoom ñëpp ah, di nuyu soxna si nekk Dakar soxna soxna Faamalo di suñu xarit moom tamit mbokk yi daal xanaa rek nga ñaanal ñu rek doole ñaan rek waaw waaw góorgóorlu bu baax rek comme lu sëñ Tuubaa rek liggéey comme dañoo nekk ci jamono mhm. koy baamtu di ko baamtuwaat mhm. nañ góorgóorlu ndax démb wéy na suba ñëw tey rek ñu war kon mm-hmm. nañ fexe ba suñu tey jakk mm-hmm. yàlla nañu yàlla jéggal jéggal suñuy bàkkaar ak suñuy rëcc rëcc te mbas mi yàlla jële ko ci àdduna bi yëpp ñu dund ba di ko nett te i xéewal yi ba di topp ci yàlla defal ñu nawetu jàmm bu barkeel yéen yàlla boole leen ci milliardaire Sëriñ Tuubaa amiin jërëjëf jërëjëf amiin maa ngi àndoon ak Bekkaay Ndiaye euh, Cheikh Bey di leen gërëm bu baax a baax mbokk yi ci kàddu gi si di jaaxate la dig daje ci beneen jotaay ak découverte tabaski.